tey ñu doon waxtaanee rek euh, lu jëm ci situation coronavirus bi ak port masque yi waaye tam lu jëm ci wàllum location yi ndax gis nañu ci jamono ji am na locataire yoo xam ne ñu ngi jànkonteeg ay euh, jafe-jafe ñu bàyyi la rek nga joxe sa xalaat ci situation bës bi lu jëm rek ci cas communautaire yi nga xam ne euh, mi ngi jël propagation bu am solo. waaw maa ngi lay sant di la gërëm di sant sa auditeurs yi di wax ne association pour la défense des locataires. nga xam ne ci baatam laay yëkkati kàddu yi ñoom ñu ngi rafetlu déjà mesures yi nga xam ne président de la république jël na ko jagleel leen ko. Mhm. benn bi mooy euh, président daf ne décision de justice yi dañu suspendre seen exécution. Mhm. boobu li tax mu intéressé locataires yi mooy ordonnance d'expulsion yi dañ ci bokk parce que ay décision de justice la. Mhm. mais li ci ëpp solo mooy. président dafa continuer ne suspendre na expulsion yi mhm. donc ñun approche bi ñu ci am e loolu moo ci ëpp solo pour association pour la défense des locataires mooy non seulement décision ordonnance d'expulsion yi mu mënuñ ñu leen exécuter mais amul benn bailleur aujourd'hui bu mun a poser di benn acte boo xam ne dafay dem dans le sens d'une expulsion je veux dire par là que même si le locataire aujourd'hui dafa amel benn weer wala ñaar bailleur mënatuñ fa yebal huissier pour mu jox ko commandement assignation en expulsion mmh. parce que président la république su bëggoon yem ci ne dootuñu dootuñu génne nit rek dafay yem ci suspendre naa décision de justice yépp nga xam ne dafa ëmbaale ordonnance d'expulsion mais daf ci yokku ne suspendre nañ expulsion yi mooy huissier waratul mën a jël kayit yóbbul ko locataire bu ameel weer wala ñaari weer bailleuram dans le seul but d'obtenir une ex son expulsion te loolu dafa am solo parce que loolu dafay ñëw firndeel ñu li ñu doon wax nekk pour gagner le pari mooy combat bi nga xam ne état bi euh, jël na ko contre le coronavirus pour gagner ko il faudrait que slogan boobu ñu yëkkati restez chez vous remplir son son objet mu am sens parce que mënuloo wax nit restez chez ba pare ubbi ay brèche yoo xam ne ay nit dinañ fa mën a jaar mhm. pour génne nit ñooñu nga ne ñu toog seen kër loolu mooy premier aspect bi donc loolu association pour la défense des locataires du Sénégal daf koy rafetlu mhm. parce que euh, ci ay plateau yu bëri toog nañ fa man personnellement wala président Elimane Sall toog na fa yëkkati ay kàddu ñaan Euh, autorités yi jël décision pour geler expulsion je pense que appel boobu moom le président dégg ba satisfaire au moins une partie euh, réclamation ou en tout cas doléance su locataires yi mm-hmm. mu des nag beneen partie parce que c'est important euh, madame Niass de de préciser parce que bëgguñu également euh, mesure yooyu porter préjudice bailleurs yi non seulement dafay porter préjudice bailleurs yi mais dafay andi déséquilibre dans la relation contractuelle entre locataire et bailleur parce que soo nee par exemple bailleur mënatuloo génne locataire ba pare amul contrepartie da ngay déséquilibrer la relation contractuelle te loolu mën na andi jiixi jaaxa entre bailleur ak locataire mën na dem sax ba ci voie de fait parce que bailleur bi su ko wóoree na amatul recours Euh, euh, boo xam ne yoon ubbil na ko ko de par la loi pour obtenir gain de cause mën na essayer se faire justice lui-même pour éviter nag situation boobu moo tax ñun ñu jàpp ne dafa des ay mesures complémentaires yoo xam ne état bi war na ko mën a jël mhm. pour garder l'équilibre contractuel entre bailleur et locataire en quoi faisant euh, Madame Niass en essayant de trouver une contrepartie financière, en tout cas pour cette couche, n'est-ce pas, de de de bailleurs euh, bi nga xam ne dañu vulnérable wax naa ko ci ay plateau. ñun suñ ñu ci interroger dinañ essayer identifier ñooñu nga xam ne soxla nañ dimbalu état ba mën a nekk ci jàmm ñoom ak seeni i bailleurs. Mhm. ci seen kër. d'accord. Euh, Pape. baax na moom kay lépp leer na mais. alors maître tu lu jëm tamit euh, ci ndogal bi nga xam ne joxe nañ ko. est-ce que tamit day wax ne rek képp koo xam ne amee nga xaalis sa bailleur doo ko fay wala bu fekkee mën nga ko fay tam da ko war a fay. non da nga ko war a fay mais xam nga xam nga xam nga mesure bi c'est une mesure obligatoire mais xam nga loolu caageen soo mënee fay. Mhm. da ngay da ngay da ngay profiter ci situation boobu non non mhm. xam nga euh, madame Niass moi j'ai dit. que fi mu nekk nii euh, euh, sénégalais bu ci nekk. Hmm. da nga war a adhérer dans cette dans cette dans de solidarité. Hmm. ku ci nekk ah sa akulaay taala ak li nga xam ne yow nekk na ci say euh, ci say possibilité nga def ko. Hmm. locataire locataire. aussi àq la ci sa diggante ak sa bailleur nga am possibilité fay ko. nga nga ne noo doo ko fay parce que président de la république jël na dogal ne kenn mënatul génne locataire Mm-hmm. loolu c'est de la mauvaise foi mm-hmm. moi je suis je suis pour la la justice et l'équité mm-hmm. et j'ai toujours l'habitude de dire que pour être fort dans son droit il faut être respectueux de ses obligations locataire bu nga xam ne nekk na dans les dispositions remplir sa part d'obligation pour maintenir l'équilibre contractuel ak jàmm ji nga xam ne moo war a seq diggante bailleur ak locataire ngir yàlla nañu jël ci seen am-am c'est-à-dire mm-hmm. locataire bi et bi mm-hmm. maa ngi ñaan aussi bailleur yi nga xam ne parce que am na dañu nekk ci ay disposition ne euh, nekk mun nañu au moins renoncer à une partie wala ñu jéggal sax locataire ba ba ba ba ba bi jóge fii seeni seeni location maa ngi leen di ñaan ñoom aussi ñu def effort boobu ah effort de solidarité boobu ñu def ko ngir yàlla ak yonent bi maintenant euh, l'exemple que je voudrais donner c'est l'américain gis nañ ñun ñëpp ci réseaux sociaux yi ah le citoyen new-yorkais yi nga xam ne dafa am deux cents locataires mu bind note ne leen baal naa leen mois d'avril bi yéen ñëpp lu ngeen fay d'accord hmm. euh, euh, loolu hmm. ñu ngi koy ñaan bailleurs yi di ko adresser aussi locataires yi ne leen c'est pas parce que il y a une mesure mm-hmm. bu leen di protéger contre les expulsions que waru leen fay seen i location ngir yàlla ku ko mën na nga ko fay. Mm-hmm. alors maître luy sa xalaat euh, ci li nga xam ne tey jii mooy ndogal bu jógee ci ministère de l'intérieur ñu wax ne rek euh, port des masques dafa nekk loo xam ne léegi obligation la. waaw euh, xam nga gis naa ay commentaires yu bari yu ci jib mm-hmm. ci loolu. parce que ñenn ñi ñu ngi naan bon masque bi waxu joxewuñu spécification mais man am naa ay documents. Mm-hmm. yoo xam ne ça émane du ministère ou en tout cas du ministère de la santé yuy spécifier yuy spécifier masques yi mm-hmm. donc le débat ne se situe pas à ce niveau-là xam nga débat bi fan la situé euh, madame Niass mm. débat bi mu ngi situé wu ci est-ce que dogal boobu kilifa yi yëkkati teg ko ci kaw askan wi ban finalité la am est-ce que c'est pour les protéger Mmh. Est-ce que c'est pour lutter efficacement contre le coronavirus réponse su question boobu moo am solo et à mon avis la réponse elle est oui mm-hmm. parce que nit ki su fekkee ne autorité dafa jàpp ne aujourd'hui cas communautaire yi daf dañu commencé jéggi dayoo mu ne léegi pour endiguer parce que pour le moment man dama jàpp état bi mënagul yóbbu nit ñi confinement mm-hmm. pour les raisons que nous savons tous parce que sénégalais bi fii fi fi mu nekk nii au moins mun nañu wax ni une bonne partie de l'économie informel moo ko yor mhm. informel moo ko koo xam ne saa yu xëyee këram dafay jóg dem taaba taaba out dépense comp ci tuuti denc pour location am suñu la nee toogal sa kër te amul contrepartie financière day daal di doy waar mhm. mais la solution alternative à ce confinement là mooy au moins le port des masques te waxuñu ne obligatoire de façon générale dañu cite les yi nga xam ne dañu ne port masque bi c'est obligatoire foofu ma jàpp ne c'est une solution salutaire mhm. loolu laa jàpp parce que loo xam ne dafay dafay lutter contre la propagation du euh, du du coronavirus pour man solution salutaire la ngir yàlla population yi nañu dégg appelu autorité yi parce que c'est pour la santé publique c'est pour la santé de tous mhm. nañu fexe jël masque yooyu parce que gis naa sax suñu tailleur yi ay jàmbaar lañ ñu ngi ciy def liggéey bu bu am solo ñu ngi confectionné ay masque am na ñoo xam ne sax ñu ngi koy jaaye fukki dërëm wala ñaar fukk mhm. te masque yooyu masque yooyu mën na nekk une solution waxuñ ne rek dañuy dañuy ut masque yi nga xam ne moom la ñuy jaay ci pharmacie yi mën na masque yooyu mën na nekk ay solution de substitution ba pare mën na endiguer la propagation du virus moo tax ma jàpp ne c'est une solution salutaire et que population yi dañ ci war a adhérer massivement pour euh, réussir le combat contre le coronavirus. d'accord Maître Sakho ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi lay remercier madame Niass. merci jërëjëf jërëjëf.